ñu ngi leen sant yéen mbokku taskati xabaar yi di leen gërëm di leen nuyu di nuyuwaale aussi waa Sénégal ginnaaw gi suñu kuréel gi taxawee ca jamono yàlla ngir wax ak waa Sénégal dañu ñëwaatoon tey ngir féddaliwaat ndax dañu ne woon kat niñ koy déggi waa Sénégal xamaguñ ko ndax olof njaaykat kat na tontu du forox ndax ci jamono yii ñu génn mbay Dione ak i nitam moo def benn point waxtaan waa Sénégal di wax ne que kat li fi ne ñoom la ndax ba mu génnee keroog ca la wax ne moom moo tax ñu xam ko moom Mbay Jon waxaat ne que li fi ne moom moo def maanaam ancien régime nguur gu jëkk yi dara dafa jaadu kon ñu toog waxtaan ak Sénégal nit ñi xam carrément que li fi nekkoon laata Mbay Jon nee na kat Sénégal buñ ko xamee ci moom la. loolu buñ demee ci taarix maanaam ci histoire politique Ngunjaan li xew weddi na ko ndax ca jamonoy Senghor la ñuy doore ba muy def campagne ngir doon président de la république ñëw na Ngunjaan atam papaay ancien président bi Gora Ngom moom moo ko fi dal président Ousmane Tanor Dieng ñëw na fi Idrissa Seck ñëw na fi président Macky Sall mi yore réew mi nag ruq ruq fa ñeneen ñi yeggul woon sax moom dem na fa kon mbay ngunjaan yàgg nañ ko xam 1996 organisé nañ fi benn forum boo xam ne kat ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett collectivité locale yi Sénégal ngunjaan lañ tànnoon pour mu représenté collectivité locale communautaire yi kon ngunjaan yàgg nañ ko xam ngunjaan aussi nekk na commune rurale bi jëkk a wu ci net bi ci 2001 loolu nag Youssou Ndour moom moo ko fi indi woon ci jokkoo te boobu tam waa Ngunjaan ni ñuy def Medina moom moo taxoon mu tànn njaan pour tàmbalee foofu maanaam jokkoo bi Medina lañ tànnoon ci commune yi kon yàgg nañoo xam Ngunjaan bu baax a baax bu ñu xamee Ngunjaan ci moom kay xanaa ci njortu ci ay tuuma yoo xam ne moom weesu na sax ay millions yu bëri yoo xam ne ñu ngi leen di tuumaal ñoom ñu yor nguur gi euh, laata 2009 fekk na laata mbay jo bi mbay joon di jël nguur gi fekk na njaan am ñetti école fukki école ak ñett ancien régime boobu ñuy wax bi ñuy def passation de service ak mbay joon bàyyi na fu fukki million ak juróom-ñett yu teg 18 millions 863 mille 63 maanaam fukki million ak juróom-ñett fukki million ak juróom boole kook juróom fukki million ak ñaar yoo xam ne PNDL moo ko neexale woon ngunjaan loolu la mbay joon tàmbalee bi muy jël nguur gi fii itam fekkoon nañu am benn ñaari CM benn lycée ak benn centre universitaire loolu lépp ci wàllu éducation laataa muy jël nguur gi tam fekk na route Ngunjaan Seexay Jaag ñu bitume ko ba pare te route boobu bi ñu ko bitumee tax na ba ay xale yu bëri am ci liggéey ay jigéen ñu bëri am ci liggéey aussi ci wàllu wér-gu-yaram Mbay Joon fekk na fi ñetti poste de santé fekk na fi ñeenti case de santé ci wàllu hydraulique aussi ñetti forage la fi fekk cent pour cent ndox mu neex ndox mu baax la fi mbay Dione fekk te malheureusement léegi nag loolu mën ko maintenir ba tey jii nii ni ñu ko waxee sànq chef lieu de commune dëkkam ndoxu teen la ñuy naan fi nga xam ne moom mooy population wu jaag juróomi dëkk nga fa waaye ñooñu bu ñu amee ndox tey yàlla ak ay ab carrière boo xam ne moom moo leen ci jàppale ci wàllu courant tam Ngunjaan fukki dëkk ak juróom la quinze villages waaye laata mbay joon ni ñëw fukki village ak benn fekk nañu électrifié ko kon buy def bilan na ci boole boog la ab du juuf defoon moo gën a yomb mais def bilan boo xam ne sax électrification depuis nguur ancien ancien nguur ga la kooku wax dëgg yàlla moom jaaduwul électrification kon fekk na fi fukki dëkk ak benn ci fukki dëkk ak juróom yoo xam ne nekk nañ fi net bi aussi wax naa ko léegi kon buñ ci génnee loolu lépp kon mbay jon kon lan la fi def kon loolu la ñu war a seet defu fi dara wala boog astafurlaa sax def na ndax après passation de service am la mu njëkk a wax mooy waxam ju rëy ba nee na nekku fi pour taxawul kenn mu am liggéey je ne suis pas une agence de recrutement loolu la waxoon en conseil rural loolu sama kanam la woon nekku fi pour recruter kenn ci carrière yi mbay Dione nag loolu tax na ba weer woowu am na benn carrière boo xam ne juróom-ñaar fukki nit lañ fa dàq weer wa ca topp beneen carrière dàqaat loolu loolu de Mbaye Dione def na ko fi doomi xale yooyu doomi way jur yooyu ñu dàq yépp nag seen njàng fan la toll seen famille aussi fan la toll kon loolu doon na question yoo xam ne kon Mbaye Dione war na ko war na ko signaler deuxième adjoint au maire am moom dañoo dàq ba dàqaale magu deuxième adjoint au maire Mbaye nag li koy neex li muy topp nee na moom ay patente yoo xam ne ñu ngi koy dugal ca atam nag tontu woon nañ ko noonu nañ ko patente yi baax na naam waaye fukki junni wala ñaar fukki junni yi waa Ngunjaan di jële ci carrière yi weer wu nekk moom moo leen ëppal solo fuuf patente yi te patente yaa ngi noonu sax liñ ci xam moom bëri na mooy affaire u luubal liñ koy tuumal fan yi euh, euh, centre universitaire bi lycée bi teen beeg marché bi jegewaay bi mu jegee tëli bi tax na ba ay accident ñoom ñoo fi am tout le temps ba lycée bi accident yooyu sax dem na ba am na benn xale bu ci gaañu ci jamono yële ñu ngi koy jaal ay mbokkam kan la waroon ku dul mbay joon taxawal ay tableau de signalisation ñu mën a xam ne fii kat école la fii kat teen la fii kat leneen waaye moom moom leneen moom moo ko ital ngunjaan kon mën nañ jàpp ne mbay joon daf ko wor ndax bañ koy fal 2009 dañu amoon yaakaar bu mag ci moom ndax xale la ndax cadre la waaye bu ñu xoolee fa mu fekkoon Ngunjaan ak fi ñu ko fekk léegi ak fi Ngunjaan tollu léegi mën nañ jàpp ne kon Ngunjaan Mbaye Dione daf ko euh, daf ko bett bett ndax amoon nañ yaakaar ne moom li gën li fi nekkoon la ñuy def waaye amuñu woon yaakaar li kat lu yées li fi nekk lañuy def kon li ñuy ñaan koy Mbaye Dione moom ngir yombal mbir mi ngir yombal mbir mi ci waa Ngunjaan yombal ko ci nguur gi moom mooy mu démissionné euh, démissionné ba pare kat jébbal yoonam justice justice mën a def liggéeyam ndax koo xam ne kat ñu ngi koy tuumal moom ak i nitam wax dëgg yàlla moom kooku jéggi na dara jéggi na day trop ñun mënuñu comprendre ay collaborateur u maire yoo xam ne kat dañ leen doon tuumal ba ñu nekk en liberté provisoire kat ñu continuer encore di nekk ci juuti ñu continuer encore nar a nekk ca daralu sew xay dañu wax ne kon daralu sew xay bi lan moo tax aussi enquêteur bi enquête mbir mi nag dugala ko ci enquête am ndax ñun dañu waxoon ne droit de stationnement droit de stationnement nag tëli bi la ak ak daral bi te daral bi bokk na ci daral yi gën a rëy ci Sénégal boo nee daral boobu kat dafa déficitaire kon amoo ci dara kon loolu day doon kéemaan ndax dañu wax ne que sànq ne que fii dafa jaaduwul mbay joon ak i nitam dem di wut ay ticket yu collecte te waxtaanu ci ak trésor ndax ticket de collecte trésor moom moo ko war a jox collectivité locale waaye kon ticket yooyu ñi nga xam ne ñoom la ñuy dagg juuti yi ci ci daral bi fan la ñuy jëlee yooyu ticket ndax est-ce que yoon may na ko Mbaye Dione lan moo ciy responsabilité Mbaye loolu la ñuy xaar ñi doon def enquête bi ñu wooyeel liggéey boobu ndax kat daralu Seexaay bi ci droit de stationnement bi la bokk ngir looloo taxoon ñu bëggoon dajalewaat ak nit ñi génn waat benn jukki boo xam ne kat bokkul ak li Mbaye Dione doon wax ci wàllu liggéey bi nga xam ne moom moo nekk ci biir ci biir Ngoundiane loolu lañu amoon lu ñu leen doon présenté. Euh, mu ne ndax mbay su démissionné wul lan la ñuy xaar ci ci état comme nuñ ko waxee sànq rek lii du lu xam ne ñun dañ ko dañ ko sos mbay dañ ko incriminé woon ba mu joxee ndampaay pour ñu bay bay nëggandiku ndampaay bi toll ci juróom fukki million ak kër deux deux étages boo xam ne ñu ngi ko évalué ci téeméeri million ak benn donc kon dañuy wax ne Macky Sall mënul wax aussi dafa bëgg yori askanu réew mi ñu koy yore ci yorin bu sell ba pare euh, alalu collectivité locale yi ñu koy ñu koy pasar pasare kon donc dañuy nax ku ñuy ji naan du mën a du mën a ba nangoo joxe caution kon xëy na peut-être nangu na yow kon dootuñu nangu aussi ab sàcc jiite ñu te noonu lañ ko mën a waxee te vraiment jusqu'à preuve du contraire loolu la ñu gis parce que dañ ko koo jiiñ te daa mel ni kon nangu na ko kon dañuy ñaan président de la république ak justice bi def liggéeyam ba Ngunjaan aussi nga xam ne mbay Dione de koo waroon Ngunjaan mën a dellu siwaat siggiwaat duggaat ci ay alalam parce que ñun loolu rek la ñuy xaar ci Ngunjaan loolu la ñuy xaar ci justice loolu la xaar ci président Macky Sall kon loolu rek la ñuy xaar su démissionné wul aussi mbaa loolu amul ñun comité bi combat bi amul lum ñu jaral ci ñu yoon may bañuñu ba def marche ci tabaski baa ngi ñëw parce que la population le demande mais bëggaguñ ak foofu bañuñu aussi ba bloqué conseil bi mais comme droit mayuñu ko dañu ñaanagum rek droit defagum liggéeyam parce que ñi ñu jàpp ak mbay muy ñaari nit ñu ne dañoo bokk ci luubal bi mënuñu nangu aussi ñoo ñu continuer di nekk ci juutu bi di jël alalu nguñaan di ko dajale mbaa dem ci daral bi aussi di jël alalu juutu bi di ko dajale kon ñun dañoo ne loolu xëy na peut-être jaaduwul kon day mel ni réew mi justice bi ak Macky dañoo nangu càcc gi te dañoo bëgg càcc genn nguñaan te mbay ak équipe am ci loolu lañ nekk. yeneen problème yu am donc yeneen problème yu jafe-jafe yu Ngoundiane am te Mbaye xëy na peut-être tourné ko jox ko ginnaaw bokk na si problème mu ndox problème mu ndox Ngoundiane de koo am ba léegi soo rombee teen bi ngeen wàcc foofu sareet yaa nga fa dañuy rang te même pompe bi fa nekk opposant bi nekkoon fi ak mbay nekkoon candidat dessus moo ko fa def moo ko fa def maye ko beneen kii problème mu ndox bi mooy jaag mu ngi am presque cinq village yàlla ak mbaaxaayu borom carrière moo ñu may teen boo xam ne yàggoon na fa ñu gas ko mais utiliser kuñ ko parce que dañ tantaag ba presque une semaine duñu ñu am une seule goutte ñooñu ñooñu may teen comité de forage u jaag génne 6 millions gas affaire bi ak tiwo yi pour jaag euh, li ñu buggoon wax ci loolu ci question bi mooy ñun ji ñu kenn lu ñu constaté mooy Ngoundiane dafa nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu indi yoo xam ne il faut ñu signaler ko justice yoon pour mu ñëw saytul ñu ko buñ ko yëkkatee la procureur ñëw jël dossier bi ne ñu dem leen toog samay mbiru bopp la ci la ñu mën a enquête yi ñu arrêté ñeenti ci ñoom après arrêté waat maire ba mu joxe caution ñun nag xam nañ yoon dafa am nu muy doxee ci dëkk bi am na lu ñuy tuddee procédure maanaam buñ la jàppee ci détournement deniers publics buñ la ko jiiñee nga ñëw man nga joxe caution pour ñu bàyyi la bàyyum négandiku nga dellu sa kër ndax moom tam meeru dëkk la buñ ko tëjee naam dina am jafe-jafe yu mu indi ci dëkk bi moo tax mu am possibilité boobu pour joxe caution dama bëggoon ci indi tontu. mooy ndax ñun lu ñuy def parce que ñun dañuy laaj na Mbaye Dione démissionné bu démissionné wul ñun lu ñuy def mhm. ñun tàmbale nañ koo def mooy ñun combat bi ñu engagé nii duñu ko bàyyi parce que mënuñ la jiiñ lu toll ci ay millions ngunjaan gu pauvre bu sonn bii yow nga continuer di diriger ngunjaan ñoo xam ne ñoo àndoon ak moom ci buñ ko mujjee arrêté ñooñu continuer ne ci gérit bi ci tax de stationnement bi bëgg a dem ci daral bi di continuer waat di luubal xaalisu ngunjaan ndax tambalewaat nañ di defaraat ay talon ticket yoo xam ne trésor yëgagul dañuy artuwaat encore bu ñu waxaat ne yéen a defaat lii yéen ay sonal waa ngunjaan ñuy jiite ngunjaan il faut que ñu xam fu ñu war a teg seen tànk dem defar trésor ñu defar leen ay talon pour pour pour juuti bi ñu ñëw ci dëkk bi ñu xool ay nit ñu sel ay nit ñu ñu ñu doyloo ñoo xam ne ñooy toogal foofu waa Ngunjaan kon na xam ne moom monsieur le maire que moom mënatul honnêtetem normal sax waratu ko may mu jiite Ngunjaan parce que bu ñu lay jéñ ci yu toll noonu ci ay millions da nga war a yombalal yoon liggéeyam te moom miñ doon dégg ci télé yi di rajo yi mu naan démocrate la républicain la démocrate ak républicain day tàmbale bu ñu la jiiñee dara nga tekkil say ndombal tànk ba yoon leeral lépp bu yoon leeralee bu ci taqul mu xam ne taqul lu mu soxlawaat ngunjaan ñu jox ko mais fi ñu toll ni population ngunjaan ci jiixi jaaxal lañu nekk loolu lañu bëgg mu dañ fi parce que dëkk bi doxatul gérit bi doxul juuti bi ñu ngi koy ubbiwaat ci ay coow beneen taxe doxatu fi même signature ASC yi sax pour def ko ñu ngi wër ASC bu am récépissé pour ñu war a génne subvention nawetaan mais Ngoundiane dafa laaj liggéeyaat moo tax ñu ne ci luñ koy tuuma ak fi mu toll mënatul diriger Ngoundiane mënatul gérer Ngoundiane na tekki ndombal tànk moo tax wax nañ autorité yi ne ci nu mu nekkee ba nga xam ne mënatul jiite Ngoundiane ñoom nañu jël seen responsabilité en fait co ministère ministre collectivité locale na ko servir lu ñuy tuddee mise en demeure pour mu expliquer wu ci situation yi xew ci Ngunjaan bu aajoo leneen mais ñu suspendre ko parce que le conseil dafa war a fonctionner nee nañ leen fii depuis le deux mais conseil yu Ngunjaan kenn convoqué ko kenn waxul ci waxu Ngunjaan ça fait plus maintenant plus de trois mois dëkk bi taxaw ne jonn ni moom demul